ay góor ak jigéen am Pastef lool ci liggéey bi jamono ji nag ñu nekk ci ngóobam suuna ñu am ci mbégte ndax itam li ñu ciy xaar ci ay rendement takku na lool bu nu ko méngaleeg nag ak bi weesu. rendement dugub bu dee bu dee fii fii ci Missirah de bu dee fii ci Missirah de ren lay man ci daaw ma li ma fi gis dugub yi nga xam ne ñoo ñoo fi doon liggéey moom ren lañuy ñuy man ci daaw li li li ma fi gis. wax dëgg yàlla dugub bi ren la gën a gën a rafet te ren la dugub ji gën a gën a gën a baax. bu dee nag lu soxal gerte gi mu mel ni des na muñandiku waaye tamit di xarandi yeneen i taw ngir mu mën a noppi loolee nag li ko waral bokk na ci eh, jamono ju yàgg ji nga xam ne toog na ko te tawul. gerte gi sant yàlla bu baax moom képp koo xam ne jiwoon nga daal te te te teel a ji te bay ko mu set wax dëgg yàlla sant nga yàlla bu baax baax na. am na yaakaar bu baax lu ci bari kay àgg na sax li ci bari àgg na ndax am na ci ñoo xam ne tàmbali nañ ko récolte sax. mboq mi moom fii nag jubluwuñu ko lool waaye tamit li ñu ciy xaarandi ci ay njuréef taxu ko demee nii li waral loolu nag bokk na ci engrais bi nga xam ne cheroon na lool ci jamonoy mbay mi ñu ci nag artu nguurug Sénégal. mboq moom fii am na ay ay benn benn rek yu ko fi bay waaye taxut mu mu bari ay benn benn li mbay mi taxut mu bari ndax ay waar rek lañ koy def. waaye fii moom li ñu fi bay mbokk ba xam naa dugub daal ak gerte ak ak ñebe la ëpp lu ñuy bay fii moom. urée bi ñu ngi ko doon jaayee douze mille cinq cent bu dee engrais engrais dugub bi ñu ngi ko doon jaayee onze mille cinq cent moom xawoon naa seer ci baykat xam nga baykat bu toll foofu li mu yoroon lépp mu suul ko ci suuf ba pare bëgg a jënd engrais kooku day xaw a metti moom. ci campagne de commercialisation jagleel gerte bi ñu dëtmal ñoom baykat yi nag ñu ngi sàkku ñu jëndee gramme bi lu wees juróom-ñetti fukki dërëm. Missirah di ab commune bu nekk ci département bu Mbacké digganteem ak Touba toll ci fukki kilomètre ak ñett ci dëkk bi nag askan bi seen koom li ci ëpp solo ñi ngi koy jëlee ci mbay mi. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.